ngërëm léegi bu fekkee mu ne faraa'idul wudu'i faratay njàpp de tàmbalee neen benn xasul maa raxas la nga xam ne bay na daf ne nekk na diggante ñaari noppi wa manaabitu sha'r ra'si ak cax-caxi karaw yi bopp al-muxtaaji cax-cax gën baaxoo wa daqani ak sikkim man toog fii ndax da ngay raxas yem si na fii yem si fii yem si fii fii fii fii fii nga xam ne almuxtaar yi sax sax dañu baaxoo fekk nit ki dafa leer warul fi yëpp saxul karaw waru ko raxas wala moom dafa karaw dafa sax ba fii lu tee da nga raxas ba fii ba fi ñu baaxoo daal mu ne wa baaxir jaxete ak aji feeñ ji sikkim aji feeñ ji sikkim xam nga aji feeñ ji sikkim lexee bi ñu ko waxee rek bokkul dàqanu xam nga la waxoon. dàqanu mooy yàq mooy man moom. lexee mooy baax. maaleykum salaam Diagne.
إنا جعلنا في أعناق الأغلال فهي إلى الأذقان فمن يولي إلى اللحى من إنا جعلنا في أعناق الأغلال فهي إلى الأذقان فمن يولي إلى اللحى déedéet. dina la ëpp yi.
waaw dina la dàqanu dàqanu dàqanu.
ndax liha moom nga xam nga day tool la rek karaw la bokk kañ ba mu ne kon jaay na nga ne alhamdulilah bi na alhamdulilah dégg nga wasaar yi nga xeete aji feeñ bi sikkim sikkim bi lu mu sëq kaw bi rek doo ko kii ci biir xalil waaw doo ko xarit daan wax ci ca ngaay ko wax daan wax itam sikkim bi nga xam ne tal na ak bi nga xam ne woyof na fii dafa wax ne zahir bi nga xeete mu ne sax wax si yàq si lu lay raxasee dana raxas alwatara sa xol ba mooy kii boo dee sarax ko fépp dugaloo sa ñaari baaraam ci ci biir dañ dikkee woo sunna boo nee rek ne dikkee woo sunna waaw nga def lii xol ci mooy kii xocc lañ ko tuddee waaw xocc dégg nga dégg nga wa asaari jëfati yi ak ñagg ñagg jëwam xam nga am na ñoo xam ne seen jëf dina am ay rëdd nii am poos poos ak yooyu faaw nga fexe ba ndox mi dugg ko non seulement ndox mi laal ko mais sa loxo yëpp laal ko parce que sotti ndox ak ragg lañu wax ñaari mooy fatt parce que soo sotti woon ndox ba muy seer nit mag tam te dégloo dal ko itam nga sangu wa mu ni kon wa zahir shafatihi ak bitti ñaari tuñam moom mooy lépp lu feeñ xam nga ñu bari ñu raxas bu ñu raxasee nii rek du ñu laal tuñ yi dañuy daal di même ci tiim dañuy daal di nii rek raxas ndox mi romb nii fekk boo wax lii ak lii yëpp sa loxo wax na ko laal ni ko ndox mu war a laale dégg nga mu nga mu ngi ne bi tax li chaari ci xalil karaw boo xam ne dëkkaru dana feeñ al basharatu bind ba mooy derwa taxtaloo ci suufam fekkee ne karaw fu sax karaw nga xam ne daañu gis sikkim bi daañu gis yaram bi der bi ci biir foofu da nga ko xam kii fekkee nag nga dégg ci bu talee tuuti ba nga xam ne duñ ko gis soxla wuñ koy koy joññi kon foofu noonu waaye laaj yor xar bi ci ak yi ni day jam-jam bari ak bopp wér bopp wér na fii maanaam gis nga dafa amoon jam-jam mu xóot na wér na léegi ñu dugal ndox ak loxoom ci biir ko raxas doo ko def aw ko nag wala bindee ko raaxiran bi mu daal di xóot dafa am itam xóot ko boo xam dafa xóot kooku itam soxla wu mu ni kon di ci dugal loxoom wala di ci def ndox bi yooyu mu ni kon waaye day naka noonu ñaari loxoom biir faqee ñaari ba ci ñaari mbir mu ànd ak ñaari mbir faqee daal. bu baqee tamit tamit naka noonu desitu avant bras inqute andam dagget na loxo bi dañoo dagg lii li des dana ko raxas de buy jàpp. que kafin naka noonu ténq maanaam mooy loxo bi mais bi bi mën ko bi mu sax ci mbagg mi yàlla def ko mu saxee noonu ci mbagg mi dana ko raxas buy jàpp de. dégg nga raxas nag. bi tax ni ni asaabi yi day ànd ak xalil baaraamam yet fekkee yaa ngi jàpp xam nga ndox moom gën a dugg waaye du tee ñii daañu def nii jàpp ñii def nii rek ñu ne nag sib na ñu def nii maanaam waaye nag xaw kii moom farata la yii muy sib na waaye yii moom farata la xaw nga xalil ko daal maanaam bu ne
maanaam xamante ni kooku def naa ci toogaay sax si néeg la xanaa def ni waaw waaw ndax tasbik si lañ ko si si lañ ko si nit ñi dara sax itam lu dul toog bii rek def ko nii nii rek maanaam nii waaw noonu ak nii nii sax bañ ba bañuñu ko nii nii bañuñu ko
loxo bi nag moom am na ñoo xam ne bu ñu raxas dañuy raxasal ñaar loxo en même temps bu ñu raxasee ci ndey joor bi raxas càmmoñ bi dafa am loo raxas déedéet dañu war a tànk raxas ndey joor bi ñetti yoon tànk raxas càmmoñ tànk raxas ndey joor bi ñetti yoon ngeen ngeen defal nag mu ne mu ne kon de
bi tax lii bi tax lii asaab yi waaye naa xam toujours may dem ci page bi rek fàtte lii dama leen di jaaxle waaye dañ ma dama ne ci sa nga wax ci sa mu ne fekk kat kat bi xam tax lii asaab yi waaye laa jënd war ko ijaarat xaatim yi wëndeel jaaroom ba fekkee na ngay jàpp jaaro bi soxla nga koy tourné waaye boo dee tiim dañ ko dindi wala nga rangal ko nga waaye laa ijaarat xaatim yi ca gi ñu wëndeel jaaroom bi de mu ne war naa fa kon nag xanaa bu la bu ko wóoree ndox mi ndox mi dana dara ko laal waaye bu seeree day faaw mu la mel wana fadda mu ne wala wana xadda wana xadda dindeet na xëy na loolu ñu jaaroon lépp loo xam ne li muy peeg sa yaram booy jàpp dañ ko jëndee comme montre yeeg ci des yëpp wa masxuma ak masa la nga xam ne alal bi jubati nekk na ci kaw kaanu bopp mi bi ak musu bi xëy mu ànd ak yaxu ñaari nekk jàng xaw ma la ñu wax mooy lii ba kenn da ngay raxas xam nga nee na la ci nga ci ñaari nopp yi diggante ñaari nopp yi nga raxas ko ñun yëpp bu fekkee ne karaw bi kii na nii itam dañ ko kilewaale macha allah dégg nga mu ne maal mu fexe ànd ak aji yorom lu maanaam muy wàcc karaw wala loolu waaye war naa leen bu firi de wax la ko léegi tam ba rajulun waaye waa joo xam dafa am déet buy jàpp day masaa ci kawam rek waaye du ko firi imraatun wala jigéen waaye wuñ xalaat kat daal di tàbbal seen ñoom ñaata yàlla yi ma seen loxo tax te ci suuf si létt ba fii rajul masa ci bu ñuy delloo masaa booy jàpp létt yi xam nga day wàcc ni boo boo yóbboo masaa bi bu mu dem ngay jëndee day jaar ci suufu létt bi lépp alfaaje ko waaye du jaaraat ci kaw
waaw létt bu góor moom kii kii xam nga daf si dégg na moom kii maanaam day wax ne léegi moom létt góor am na. waaw loolu moom kii la ne. may loolu moom.
xam nga loo gis dafa am contexte xam nga ñoom arab yooyu dañuy am seen karaw ci futt léeg-léeg pour def ci même xar yooyu ñuy sol léeg-léeg dañ koy létt. waaw létt bi nag comme létt jigéen boo xam ne ñu ñu koy yeewal ñu ko kii yooyu dañ koy kii nii rek taxañ waaw dañ koy taxañ waaw mu ni fii raat bi mas wa xasluhu ak raxasam itam mu ji seen aji la kon yéen a masaa nga raxas lu doy lu baax ndax masaa moom ñun alal tax fii dañ cee jublu rek yàlla bu yombalal moo tax ñu la ñuy xalit nopp xam nga ñuy beesal masaa nopp bu kii ba noppi da ngay masaa nopp am na ñu xam dañuy def nii di def nii di def nii waaye almas moom mën nañu ala tax bi boo tooyalee say kii yi rek nii ngay def rek yow. suñu Mouhamad boo xawee yaa xam ni ñu waxtaan bi ko dégg nga. ci xëccuwaayu ñaari peer yi mooy fi kii suñ daje kii mooy bi yéex nii xam ne fi kii bi commencé yéex muy nag wala li ba soppi na xalilu asaabihima xalil ñaari baaraam ñoom tànk yi mais léegi bu ñu bari ba soppi rek wóor na baaraam la ñu indi di ko sikkim moom waa ji zahir bi rek la la la masaawa wala moom la raxasoon léegi bu ñu ko watee ba nga xam ne karaw gi léegi derwaa ngi feeñ ndax moom moo yooyu yi ñu dagg wala karawu bopp ndax sikkim moom du zahir bi ñuy masaawa
bopp la ñuy masaa ndax waaye ba tey ñooyam ndax moom itam li ñu diglewul féeg kii bi feeñul der bi feeñul sa olowul baaw boo ko xamee ndax kon mook karaw ak we ñooyam ci kaw boo jàppee ba noppi wat ko du tax nga dem raxasaat ko wala yemuñu da nga war a dem raxasaat ko xaw leen am na si ñaari wax yéen a ngi fàttali ko xaw leen ñaari ak yoon yëpp mu ne kon suñu naan mu ne wa bokk na ci farata yi ba tey ëpp dañ ko ragg ñu waxal yàlla ndax al muwaalaatu méngale bi mooy toxtale bi waaye watun ajiwaat la te balay waar in sak in zakar dem fàttaliku na ko xadar te mu mën ko itam te kon wa banaa dana jox bi niyetin ak yéene waxtu waa xam ne fasale na ko mooy in nasee dem fàtt na ko mu gaxal te wa in ajasa bu fekkee ni fàttiwul waaye dafa lot ci def ko day jokk maanaam yeetul féeg yàggul lool dana ko yàggi nu muy demee mu ne bi jëfaa fi balaa ci fenn cëri bu toogee ba nga xam ne firi cëri fenn bi rek booba yàgg na konte ni ko doon lu yàgg dootu mën a jog bi sababu si jamono mu iqtadala yoo xam ne yemoon nañ ñoom ñaar maanaam cëri nit ki bu muy nekk ku mag trop bu muy xaleel trop nay nit ku digg doomu jamono ji bu muy bu sedd trop bu muy bu tàng trop ba nga xam ne ndox mi day gaaw a fenn wala day yéex a fenn ndax sedd gi ñu ne kon ndax kon féeg yàgg gi seetu ñu ko ci loolu bu jamono bi dee jamono beneen bu yemoowul wala nit ki di nit ku yemoowul wala mu koy sunnatum sunna rek la xilaafun am luñ ci wut ñu dellu si dafa ne ragg boo fekkee ne def nga sunna yi ba noppi ba yéene fi ngay raxase kanam bi léegi cër bu àgg rek dañ caa war a teg ba ca teg loolu farata la te kon boo raxasee bii bàyyi ba mu yàgg nga bëgg a raxas bi ci tegu ñu ne la wàcc nga farata te ñi nga xam ne waaye ñi nga xam ne nee ñu farata la kat nee ñu na fekk ne fàttaliku nga ko waaye boo demee ba ba sëlmu ba noppi war a raxas sa yi nga bay xuloo ba fàtte ko kooku moom dootu farata ci yow wala mënuloo ko da ngaa kii ba noppi ndox mi jeex wala li des ci ndox mi dafa tàng bu mënuloo cee daal di teg bi ci tegu te kon yooyu kon dootu mu ne farata la wala moom kay loolu am ak loolu ñàkk am lépp farata moom amu ci sunna la daal toxtale gi am nañ ci wuute dana dikk ay détails ci kanam ñu ne daal waddal ko ragg gannaaw sotti ndox gi nga ragg bokk na ci farata yi mu ne waxal yàlla ndax al muwaalaatu méngale gi nag moom loo sotti rek dal cee teg la ca tegu bañ a yeexantalu loolu moom waajibatu lu war la ca ba muy war nag in zakar ne fàttali ko na ko waxagal te mu mën ko te kon woo banaa dana jokk bu fekkee ne mënu ko wala attanu ko bala ko ko teewoon a man dañ mu day jokk ndax dootu woon farata ci moom day jokk maanaam dootu tàmbaliwaat njàpp mi daf koy day teg la ca waroon a tegu dégg nga te day yi day ànd ak yéene ndax yéene ji daggoon na bu fekkee ne daf ak fàtte la woon mut la xam dégg nga wala moom kay bu fekkee ne daf ko fàtte bi nga xam ne mënu ci dara yàgg na wala yàggul day jokk rek bu fekkee daf koo fàtte woon te wa in ajasa bu fekkee ne fàttuñ ko waaye dafa lottoon ni ki tey ndox mi dafa jeex mu war a wuti beneen ndox wala diggante ba ndox mi mu doon kiree bi mu doon tànqe dara lu mu ragal jaan wala yooyu nekk si diggante bi mënatu ko muy xaar ba jaan di dem jaan di romb te kon moo ne jox boobu mu wax maanaam yetul fi mu nekkul lu yàgg loolu nga ne ko yàgg gi moom nañ koy xamee mu ne jëfa bi jëfaa fi daal bàyyi bu fekkee ne toog na ba cër yi mu jotoon a raxas wow ñu ne yàgg na kon dootu mën a jokk waaye nag yàgg maanaam fenn cër yi dañ koy seet ci jamono ji yemoo waaye bu dee jamono ju tàng lool mën na wow te fekk yàggul kon duñ ko ca nag wala muy jamonoy sedd lool ak humidité cër yi mën na ba tey continuer di tooy te fekk yàgg na kon duñ ko seet ci loolu mooy ñaata laa yemoo na ñoom ñaar mooy nit ki ak jamono ji jamono ji yem ju digg dóomu bañ a tàng noonu bañ a sedd noonu ak nit koo xam ne màggatu trop xaleel bu trop wala sunna la xilaafam cër bi nag moom dimbalu bi du aju cër bi maanaam cër boo xam ne bu dee bakkan xëy na day.
cër yi ci des yëpp du boobu rek yi nga raxasoon yëpp yi nga jotoon raxas waaw waaw li nga jotoon raxas yëpp la ñuy seet bu fekkee ne fenn dina ci jamono bu yemoo muy nit ko yemoo ñu ne yàgg na fekkente ne nag wowul ñu ne mën na jokk ndax yàggul waaye nag nanu seet ndax jamono ci yemoo na ak nit ko yemoo na yéen ngi dégg leen waaw dafa mel ne yàgg day day day day moom moom day dàq yéene da koy fàq.
daf koy dindi yàq yàgg day naax saa yi yéene fekkente ne lu mel ni weeru koor la weer yu feeñ na ñu ne si bëriñu war a woor nga yéene boo yéene woor ko yëpp léegi feeg doguloo yéene ji mën naa parce que ndax toftale nga waaye boo dogee nag ngant la loolu la da ngay yéenewaat léegi yéene ji itam bu fekkee ne fàtte nga ko ba ñuy xëdd nga yéene wala bu fekkente ne léegi jàpp jot na kenn waratu la lekk bis boobu bu fekk day soog a yéene moom bis boobu amuloo ko da nga koo war waaye amuloo woon da nga koy fay waaw daan wax ci kanam ne yéene boo ko teqalee ci cër yi euh, dootoo am yéene daan wax buñ ci àggee daan ko expliqué lu tax mu ne ñu toll wala tey لكن بنية رفع الحدث waaw kañ nee nañ ba tey war na niyatu rafil xadas yi yëkkati yéene yëkkati mu toj inda wa ci yi far xar kanamam fekkee ne mu ngi jàpp raxas na loxo bi ñetti yoon ak bii ñetti yoon dala xam ni ko ñetti yoon sarax ni ko ñetti yoon foofu xam nga bu koy tàmbali sunna la yéene ndax yooyu yëpp sunna la léegi nag mu ngi raxas kanam foofu la jàpp tàmbalee farata yaa ngoog foofu nag lay yéenee yéenee yëkkati mu toj yëkkati xadas xam nga waxoon naa ne bu fekkee ne dem nga ci douche bi féeg laala boo ndox amee nga xabas boo laalee ndox mi ba set waaye jàpp boo yaa ngi am xadas xadas boobu nag pour mu dañ pour nga yëkkati ko mu dañ mooy nga jàpp wala nga sangu bu ànd ak ànd ak yéene léegi nag booy yéenee jàpp da ngay yéene yëkkati mu toj wala daganam lu ñu tere daganam lu ñu tere mooy fi nga toll mu loon a kàmbal julli ndax amuloo jàpp léegi boo jàppee dagan na ci yow benn nga yéene kon euh, yëkkati mu toj maanaam tojum xadas wala nga yéene jëf lu ñu lu ñu daganam lu ñu tere wala jëf lu ñu farataat ñett yooyu boo ci yéene baax na dégg nga awil fardi wala mu yéene farata mu bokk sax aw istibaaxata moom noo in boobu mën a gis nga li ñuy wax ne moom daal loo ci wax dëgg dana da ngaa yàq waaye dana ko waxee aw istibaaxata moom noo in wala daganam lu ñu tere woon waaye donte yéene ji wa imma atabar di dafa àndoon ak ku seetlu itam bis bi dafa tàng lool da ngelaw li di xoyam nit ñi nga ne jàpp jot na naa jàpp ndax ma gën a ndax ngelaw la tàngaay bi tane ma xam ne seddaay bi ñu ne loolu ko yàq. ma ko daal xam nga moom mooy ngëm Shaafi'i la nekk. moom moo ngi ci Maalik. am na ay tafaasil yu bari yu indi indi yemale ko sax ci yéene jàpp rek ak yéene ajab yépp lu mu mën a doon. al amalu benn mu nekk xarajan alal amili bàkkaar wala mu nekk sawaaban xaalisan wala mu nekk laa alayhi laa lahu wala alayhi bu fekkee ne yéene adduna bi ma da ngay yéene aji nga yéene waale ci commerce wala nga yéene waale ci turu allah ji wala nga yéene waale ci daraja ba noppi xam ne farata la nga yéene farata ji li ci gën a dëgër ci sa xol bu fekkee ne yéene farata ji gën a dëgër ci sa xol bu ñu dindee wàllu la nga ci yéene ci àdduna la ca des nga am bu fekkee ne li nga yéene a kii bi adduna bi yéene adduna bi moom kii jaamu bi ñooyam saaral amalu laa alayhi laa lahu wala alayhi doo ci am dara doo ci am bàkkaar bu fekkee ne nag yéene adduna ji ëpp doole bàkkaar bi fi am fii ba ñu attabaru bi ba tey xalatal na ko lu tuuti lu bañ a bëri aw axraja wala mu génn baadal mustabaaxi lenn ci lu ñu daganal wàññi dara maa ngi jàpp jàpp boo ko defee dagan na nga julli boo noppee mën nga cee jàng alxuraan kaamil bi laal ko mën nga cee wër kaaba gi nga ne maa ngi ni di jàpp waaye lànk naa boole wu ci wër kaaba gi bu dee boo noppee dem ci wër wala boole wu ci kaamil de laal kaamil voilà mu ne aw qaala wala bu ne de wa in kuntu ndem nekkoon na fekkee nekkoon na waaw ñu góor fu mu tolloo ci àdduna kon waaw aw na fiya ñeenteel li wala mu fàtte xada sax am toj bi muy jàpp daal fàtte woon ne tojaloon dafa waaye yéene wuñu yees yeesal de dafa yéene jàpp am na nag toj moo xam ne wala mu toj ñaari toj wala ñetti toj fàtte mel ni mi lu mu ci mën a doon rek fàtte na toj moom waaye laaj ax rajo du ceegee ni mu génne na ko rek fekkee ne moo ko tey waaye toj maa ngi jàpp waaye jàppaale wu ma toj sàngam ñaari toj yi ma am benn bi nga fas yéene jàpp ak moom nga yéene bi ci des yéene woo ko jàpp benn da nga jàpp ne du yàq njàpp du mu toj wala leer na la ne am toj la waaye nangu woo koo jàppaale xaral bu mën a tax kooku du baax xam nga njàpp nga wuti nag boo ko fàtte woon aw na waa wala mu yéene mutlaqat taharati rek ba tey du doy lu ñu boyali laab da ngaa bëgg a nekk ku laab rek foo toll rek yaa ngi jàpp yaa ngi laab rek non ñu ne woon war a julli wala war a def dara kooku du dox kooku du dox da nga laab nag rek nag waaye doo ci mën a julli de
soo yéene jàpp rek rek rek mu def waaw waaye soo yéene yëkkati toj maanaam.
Waaw.
bu julli farata ñëwee mën nga cee julli.
waaw waaw
maa ngi fas yéene jàpp daal doy moom déedéet bu ngir am na jàpp rek wala tey nga sopp nañoo booy nuyu ji buur wala nit ko am daraja noonu nga jàpp même buur bu dee yéefal sopp nañu nga ak ñu jàpp waaye loolu moo la tax a jàpp boo si jullee wala nga fas nga jàpp pour julli waaw yow julli moom amul julli gu nanguwul njëkk ku laajul jàpp moom boo bëggee maanaam daal lépp loo xam ne nii kenn mënu koo def ci lu dul jàpp moom bu la loola taxee jàpp jàpp mën nga caa julli waaye li nga xam ne dañoo saa sopp njàpp rek boo jàppul war mën a ndox ni ki nuy ji buur wala nuy ji wala yooyu wala nuy ji alim bi wala aabid bi wala ziyaara xubóor yi waaw wala ziyaaratu xubóor yi wala leneen lu may mel ne yooyu boo si jàppee doo ci julli moo tax boo boo boo julli tisbaar nga yéene jàpp yéene tisbaar rek daal ci julli.
dara si tee nga mën cee julli ba ma ngay dee seen seen Yéene julli tisbaar.
ñu julli ndax farata nga ci yéene woon.
waaw ndax farata la mën naa yóbbu yeneen phrase.
dégg nga mu ne nag kon mu toll wala ti
al tibaa waaye kon waaye noo ngi ci xëtu ñaareel ni de al tibaa alis bi baax ak ma wala mu yéene dagan lu ma la nga xam ne lu di ba soppeef na njàpp la ko ñeel loolee mooy li ma waxoon rek aw xaala wala mu ne in ko su fekkee ne nekkoon naa ah des du toj de fa la ko ñeel na ko njàpp mi e léegi daal maa ngi jàpp wóoruma toj lewoon naa wala toju maa ngi far jàpp bu ma jàpp bu fekkee tojoon na toj toj na sama jàpp tojoon na ça va bu baax bu fekkee ne toju woon waaw waaye ndax da ngay bëgg waaye seen ànd moom loolu aw jàgg da wala mu yeesal njàppam fota ba yéen a tëbbi xale su ko am tojam moom daal yaakaar ne ngeen jàpp waaye dafa bëgg jàpp mu bees rek la bëgg julli rek moo ëpp tuyaaba mu daal di def jàppaat jàpp yéene yeesal njàppam comme ku amul njàpp ñi ngay ñi ngay jàppaate boo jàpp da ngay yéene gannaaw wóor na yaa ngi njàpp da ngay yeesal mu yéene yeesal nag gannaaw bi mu xam ne ah moom kat jàppam kat tojoon na amul jàpp rek day jàppaate rek xam ne waa ji dafa amoon lu jàpp dem ba mu yàgg mu sax tuur ndox dem tuur ndox sew gannaaw yàgg tàmm naa yore njàpp nag bu dem ci béréb rek ñu ko ay woon julli ma xel wax ci seen kanam kàbbar julli dem ba ci digg bi mu ne ah man sa war naa sàkk kat léegi lu xam ne
saa si dafa war naa toog.
te moom istiqlaal mooy jiite waaw moom mooy jiite dafay dafay doog julli gi ci saa léegi si.
moom day istiqlaal du moom mu mooy wutal jiite wutal keneen ci place am maanaam bu ca tegee dara ci loola. julli nga yàqu.
julli rek c'est ça ibnu Achir de naa mu ngi ci ndax bi ñu doon si dañ ko jàngee.
ñu koy na ko béy weer sax
yàlla na ko dégg.
da ngeen di jàng da ngeen du ngeen tëral lu wàcc faqare moom du noonu faq moom moom dafa laaj moom waaw wattu wattu waaw.
waaw te xam nga rek boo ko xamee moom yëpp day nekk mu mel ne grammaire da ngay daal di xam ne lii moo war a am rek li ñu jàng lépp parce que boo ko seetee logique la mooy très
fekkee ne tegaat fàttaliku na ko ba noppi tegaat ci dara ñu roy ko mu yàq la ñu yàq ñu yàq man de béytu ko daal mu ngi ci xale kii waaye mu ngi ci day daal di ñoom di kenn rek.
waaw wala bu demee bàyyi leen bañ a jiital kenn ñoom ñu daal ñu su la neexee lu wax kenn su la neexee kon nga àndal waaw nga xam ne seen nasiyaat xaw ma lan seen nasiyaat dafa xaw ma lan wala di taqdiru tadbiratu bihimu in abawun faradu wa qaddamu al ci teg kitaabu tahaarati wala di daal la xaw ma lan ba ne تقديم مؤتمن يتم به فإن باء الفرد وقد بيت بيتنا مؤامعة بابو xam nga am na yàqu yoo xam ne day yàqu ci ilmaan te du yàqu ci maamun yi yu bari ak yoo xam ne day yàqu ci maamun te du yàqu ci ilmaan ak yoo xam ne day yàqu ci ñaar yi am na ay bayit dafa bari ba tey nga xam ne foo ko ñu solu ci ak yoo xam ne xam nga ne kii bi bu yàqulee bu fekkee ne du bori du toj am na place yoo xam ne imaam bi daf koy jéng faaw mu continuer julli fa lay tamaada fa lay tamaada signe na fi imaam bi bismillah mu ne waaw kañ la waaye ku ko def fàttewaat naa ko mu ne aw taraka wala mu bàyyi mu attan ab déneer fan xas rek te mu raxas bi ñu yéete fadle ci yéeneen ngëneel du doy ci farata ji da nga fàtte ci loxo bi wala ci wacc ci kanam gi wala ci cër boo xam ne farata la nga wacc ci dëneer léegi nga dem ci raxasub ngëneel nga raxas ko ca waaye nag xam nga dañuy wax ne raxas bu njëkk bi farata la bu matalee bu ñaareel bi sunna la bu matalee bu ñetteel bi ngëneel la waaye nag bu njëkk gi bu matalewul di ci tegul fare farata la من أترك المتوسط مثلا فتبع إلى الحديث وأترك الأنفر وأترك المتوازن وأتبع ذلك بوجه الفرد وقرب في الفرد لا قصير مسلم ولا قد يعني ذا النفر هو هو mooy loolu ñu waxoon rek dafa doon yeesal njàpp fekk da waccoon ni benn dëneer wala benn cër bu mu raxas lu woon ca farata ne mu jàpp ne nag ba tey mi ngay njàpp mu yeesal mu yéenee yeesal mu njàpp njàpp mu yeesal mu doxul njàpp mu njëkk mu doxul mu ne kon farraqa wala mu teqalee dama doon waxal ak niyeete yéene jee alal abdaay ci cër yi yéene woo jàpp da ngay raxas rek kanam bi nga raxas nga yéene raxas kanam bi dem ci loxo bi yéene raxas loxo bi yéene raxas bii yéene masaa yéene kii yéene ci daal benn bu nekk ak yéene du doy parce que yéene woo njàpp
da ngaa yéene raxas cër bu nekk.
ci defee bu ne da koo yéene raxas rek waaye yéene woo njàpp njàpp mooy ensemble bi gis nga mooy aw faraq wala mu teqlee ak niyati yéene ji alal ak daay ci cër yi waaye wala xaru la gën a feeñ fa kan ñu leen jàng dama def la sëñ bi ay def sëñ bi day day arrangé naan leen gis naan leen waaye boo waxee loo xam ne mooy ma la ko wax ma la ko wax ma la ko wax ngeen sëf ngeen jàng ngeen sëf ngeen jàng
su ngay doon da ci war a dugal composition sax ndax waaw kañ loolu la ci baax na waaye waaye laaj yi ne baax
daaw ñu jàng mu ne wala saru la gën a feeñ fa innu rusti mu rusti fil axiri ci masal mu jimee te mooy taqale yéene yi asihatu wér d'accord moo ci demoon wa usubuha faddu yéene baadahu ci gannaaw ba mu ko fasee wa rafduha ak fëggam moo tafaru lu ñu jéggal la si njàpp léegi dangaa commencé jàpp après nga fàtte yéene ji waaye yéenoon nga ci bi ngay xas kanam gi nga fàtte yooyu sa yoon nekkatul ci yéen yaa ngi jàpp rek dara neen jéggale nañ ko wala nga jàpp ba noppi ne yéenetuma dara dara ci wàññiwul mënuñu ko bindee fi war na war na fàddu maanaam fàddu lan bi fàddu yéene gannaaw bi nga raxasee kanam wala avant kooku kooku dafa bokkul ci lii Ah.
tam jàpp maanaam kii de un jour mooy defe naa ko am da nga ne un jour mooy fàddu yéene bi maanaam ci fàdd na ci sa xel waaw xalaatatoo ko nit ñi amatoo yi maanaam yéene woon nga rek bi ngay kàpp tàmbalee xaxas ko Waaw, waaw, waaw.
da ko bàyyi nag léegi dootoo maanaam Ah.
teew teewloo teewlootoo yéene ji waaw nga xoolal sa xel daal waaw kañ ne yaa ngi jaamu yàlla mais jàpp jaamu yàlla la man maa teewoon loo xel
ah dama ni loolu wax ni yéeneetu ma dara bokkul ci yi doon jàpp déedéet xam nga yéene ji daf ko mënatu ma dindi ndax bu fekkoon ne daf koo yéene woon ba noppi mu dindi yéene ji te fekk jàppagul ndax du dox ndax waaye comme yéene la ba noppi jàpp xëy na xëy na yéene yéene mu yéene yéene mu tat ci ginnaaw bi waaw yéene mu tat maanaam ci kooku ginnaaw moom bi waaw kooku xam nga xam nga kooku moom day yàq lépp moom sen- sentiment bi foog naa ne yéene bi ci ci xol bi ne sax ci jëf yi waaw waaye boo ko yéenee mu taxal ci sa biir xol bi gan ci amul sëf bu koy bu ko boo ko yéenee rek lépp yàpp day day gàllankoor.
waaw fi taqaddumiha mi ci jiitoom mi ci doy ci jiitoom maanaam yéene gi mu yéene mu jiitu tuuti moo xam farata la julli la wala jàpp la bien sûr ci lu néew xilaaful am na fu wuute nga xam ne kon bu dee mu bari du yàq même bu dee julli ni nga waxee ne euh, boo yéene xa- kanam gi nga sotti ndox ba pare bay kii yéene xam nga kooku jiitu na ko waaye lu néew la waaye nga wala nga raxas nga kii ba noppi sotti ndox ba pare nii ba muy teg nga daal di yéene ñu àndandoo kooku mooy li ñu gën a sàkku waaye bu fekkente ne nag dangaa yéene ba noppi soo ko seet ndox mi dal di kii wala julli nga yéene ba noppi soo ko kàbbar du doy ñu ne nag bu dee jiitu gi mu ko jiitu lu tuuti la ndax dana doy wala du doy moom moo ne am nañ ci xilaaful xam nga muy sëlmale ak kàbbaru armal yépp bu ci nekk charte bi mooy mu lëkkoog moom diggante allah ak akbar nga la yéene ji dugg te sopp ñu itam dañu ne béréb yi daañu ci xamee ku dégg fiq ak ku déggul fiq kabaru armal nga ne allahu akbar xam nga gannaaw kabaru armal bu la ko maamu mi njëkkee def yàqu loolu amul julli borom lam ñu mu gaaw fi nga naan allah mu daal ne allahu akbar nga soog a àgg si akbar bi moom amul julli naka noonu assalaamu aleyka ne tàmbali nga rek mu ne assalaamu aleykum amul julli moo tax bu fekkee dégg nga ko da ngay boole koog yéene ji allahu akbar rek kenn du la mën a jiitu assalaamu aleykum itam ak taaya ba noppi daal ne allah ba te jógaloo ba taxaw ba temm ba noppi ku ko ko def ne déggul feq mu ne ñu doon noo ci ci xilaaf la ñu xilaaful wa sunanuhu ay sunnaam jàpp de mun a xas ne day raxas ñaar loxom awwalal ci njaal leen ci tàmbali salaasa ñett te ab bu dem ngir nga jaamu ndax bu fekkonte ne da ngaa dem ba si digg digg bi jàpp ne sa mu yàqu nga war a tàmbali waaye du tee nga raxasaat ko bu fekkee ne da ngaa lekkoon raxasoo ak saabu wala nga raxasoo ndox mu ndax ba mu set itam bu tee booy jàpp da nga raxasaat yooyu loolu moo tax ñu ne te ab bu dem kon pour mu set taxul te ab bu dem la mais misaal yooyu te ab bu dem nga koy raxas nag bi mutlaxin ci ndox mutlax wa niyatin ànd ak yéene walaw nag fa tey mbo doon ko ñaari way set la ñu ñoom ñaari loxo ñu dañoo set la te nga raxasaat ko aw ahdasa wala mu nga mooy li ma waxoon rek ba tey aw ahdasa wala mu toj te mu tojal njàppam fi asnaa yi ci biir njàpp mi dafay jàpp dem bay bay masaa boppam njàppam yàqu bu tee dana raxasaat loxo yi bu ci la ñetti yoon muftariqay ni daf leen muftariqatay ñi nga doon xam nga daf leen di raxas ñu teqli ko bu ci nekk ak ñetti tànk yi dem bu mat mawtun naka noonu lay itam lay ci sunna yi nga lax ndiko wastimsaakun ak sarax ndiko waaye aw baalaxa jatalat la muftinun aji wóorul la muftinun aji dog yooyu sëñ sëñ mot gra xam ko baalaxa jatalat la muftinun aji wóorul mooy bu wóorul rek maanaam booy sarax ndiko fekkee na nga woor moom ndànk ngay def ndax bëgg ñu sori fekkee na wóoruloo moom sopp nañu nga sarax ndiko bu xaw a baax waaye bu mett bu àgg fa muy mettee nag wama baala xajee tamit na muslimin aji wóorul wa fi ilhuma ak bu seen ñoom ñaar ma ma toog ak istinshaq bi sittin ci juróom benn tànk yi benn bu ci na ñett afdal moo gën nee na loolu du moo gën waaye wa jaaza dagal nañu sax ñoom ñaar nga def leen aw ihdaama wala kenn si ñoom ñaar bi tafe xasin ànd ak bi xasatin ci tànk yi rek benn tànk yi bi nga raxas ci loxo bu nekk waaye nag bu ci nekk ak ñett tànk yi nag moo gën a rafet bu jaasa daga nañu ñoom ñaar maanaam mooy sarax ni ko ak téye xam nga da nga def nii daje ci benn tànk bi wala ñoom ñett ci benn tànk bi ba tey dana doy waaye li gën a bëgg daal daal di tànk dëgg ak sarax ni ko rek benn bu ci ne ak tànk bi wastinshaarun wastinsaarun ak fiiru mooy bi nga sarax ni ko ba noppi nga def noonu génn ndox mi wa masxu wajhi kulli iznin uznin naka noonu masaa ñaari anami bépp nopp mooy biir bi ak bitti bi wa tëj diiru maa ihima ak beesal seen ndox ma mooy bi nga masaa sa sa bopp ba noppi delloo si waat ñu beesal ñaari nopp ñu seen masaa warat masxi rasi ak delloo masaa boppam yóbbu gi moo doon farata delloo si bi dafay ñaari kon ci sunna yi la ko limaale wa tartibu fara fara yi naka noonu toftale farata yi farata yi njàpp mi itam comme ni ma waxoon rek fa yoo aari def na baam def na ba maanaam toftale gi bi jiitu bi ci war a topp topp waxuñu sësale waxuñu mu waala maanaam toftale dégg nga kooku moom kon nga dégg ci ne sunna la waaye du farata du tee nga mën a am njàpp waaye sa tuyaaba dina wàññi ko ndaxaw ci ne suñu seen seen ak sunna mu ni fa yoo aadu def na baam al mu nakki suñu ne aji jett wax dafa la ñu jett ñaar la rek léegi cër bii nga waroon a teg ci bii dañ koo tëb dem ca ba ca tegu léegi da ngay boobu ngay dindi si waat rek tegaat seen bëccëg waat nii waaye doo dellu ci fa nga tàmbalee woon mooy fa yaat def na baamu al mu nakkasu la ñu jettoon la wax dew moom kese wala mu nat kasu mu nakkasu nakkisu mu nakkasu day dem mooy cër bi nga jett ak raxatul wax dew moom in bauda ndem sori na dagam da ngaa raxas ba bëgg a àndale soo koy fàttali loolu rek ngay raxas ko doo ci tegaat dara lu jéggi ci nag bu jegee boo ko raxasee ba ca teg nga see teg waaw gàtt ba yow fan nga xam wax dëgg imbaaxu de bi jëfaafin nga ne ko bu soree mu ko xam ne bi jëfaafin ànd ko fendi mooy yàgg gi wa illaa bu fekkee ne dafa gaaw yàggul bi nga ko tëbee daf koy ma attaabi yi ànd ak aji topp ca topp rek comme ni ma ko waxee nii rek wa man taraka ku bàyyi na mu fardan farata attaa na mu dikkee bii ca farata joojale ko bis saraat ak ci julli gam ca tegoon fii de moom daanaka moom kii rek risaala muxtasar muxtasar ibnu asir wa bisiraat ak si julli ga mu ne wa sunnatan fekkee ne sunna la bàyyi nag fa alaha mu jëf sunna sa limaa ngir julli nga xam ne sax doon def na julli sa julli bi ñëwee wa fadailuhu ay ngëneelam moom jàpp mawdiun béréb taahir mu di aji làpp béréb bu làpp la ñu sopp jàppee ndax njàpp jaamu yàlla la jaamu yàlla ci béréb bu làpp wa qillatul maay ak néewal ndox ma bilaa xaddin ci lu dul dayal nag wax ñu lu wax ci douche yeeg yooyu.
waaw kooku de soppuñu ko bu fekkee ne par contrainte maanaam euh, nit ki daal daf ko def ci ñàkk pexeem nga xam ne ñàkk pexe la waaye bu fekkee ne mën na génn ci biti jàpp moom lañ sopp ñu génn ci biti jàpp mu ñu kal xus bi naka noonu cangaay itam de moom lay gën wa tey munu aadaay ak ndey joor mu cër yi toujours ngay jiite rek ndey joor te te wa inaay ak ndab lay mu féetale bu dee ndab lu ubbiku mu féetale si wetu ndey joor mooy il faut ci xaar ndem ubbeef na ko mañ a nekk lu mel ne satara du nekk ne mel ne assiette nga xam ne peut être tànk ni sa ndey joor moo ko moom bu ba doon ak tàmbalee bi mu xaddami raasi yi ci lu ñu jiitali boppam ci waxtu masaa tàmbalee fii def ñu déglu si kon bu tàmbalee fee nekk itam dellu si wàcc na sunna xam nga nii wachafu xaslihi ak tollante raxas ga bañ koo def benn rek wa tasliisu wala ñetti am ko wala yàlla mu def ar rijlaani ñaari tànk moom it lan danaan benn raxas ak ñaar ak ñett ni cër yi ci des rek kazalika naka noonu aw wala mu nga an matlubu li ñu sàkku ci raxas tànk mooy al itqa al inqaaw set ga rek raxasal moom set rek moom amul ñetti ndox ak ñaar ak nangam wala yàlla mu tax tukkuraw def na sib rabi atu aji ñeenteel li nga war a raxas ñett yoon nga raxas ñett teg ci beneen dañ koo sib aw tub naaw wala def koo tere dafa dafa dafa araam xilaafun am nañ ci wute wa naka noonu lañ ciy limaale tartibu sunanihi toftale sunna yi raxas sa loxo teg ci gala galax ndiko teg ci sarax ndiko teg ci fiiru ila axiri aw ma afraidihi wala ñu di ko jëf mu ànd ak farata yi di ki delloo ma sax njàpp nga xam ne sunna la ñu dugal ko ci biir farata yi wa siwaakun ak soccoog sa baaraam nga way ak siwaak ak soccu ci njàpp rek wa imbi asbay doonte sa baaraam la woon itam mu ne naka noonu ñu ko soppee te salaati naka ngir julli ba odat boo xam ne sori na min hub ca njàpp ma nga dem defaat ko nga soccu bala ngay julli wa tasmiyatun ak bismillah ci njàpp waaye am na wuute de wa tushraw def na yoonal ko moom bismillah fii xuslin ci cangu ci cangaay wa tey mu min ak boo dee tiim wa aklin booy lekk wax bismillah yoonal nañ ko wa surbin booy naan wax nañ ko wa dakaatin booy rendi waru koo bi dàbbatin booy war fas wala gëléem wala nag wala ngay dugg ci oto wa safinatin wala ngay dugg ci gaalu ndox wala gaal guy naaw wa duxoolin ak dugg wa diddihi ak safaanam te mooy génn li man silin ñeel kër ngay dugg ci kër wala ngay génn yoonal nañu nga ne bismillahi de boo ko waccee day wacc am nga bàkkaar wacc nga lu ñu digle wa masjidin wala ngay dugg si jàkka wa lubsin wala ngay sol yére donte dàll la woon itam yoonal nañu nga ne bismillahi wa xalqi baabin ngay ubbunt wa itfa misbaax ngay fay làmp yooyu yëpp war nga ne bismillahi wa watun laal wa suudi xatibin yéegu xatib bi min barab min barab mu yéeg ci kaw min barab mooy bismillah wa taxmiidu maytin bu ñuy gëmmal néew xamaas lañ koy wax walax din wala ñu di ko dugal ci bàmmeel bi yépp day sopp nañu bismillah ñun kii digle nañ ko yoonal nañ ko wala yun wala tund bu waaye soppeefu ko soofi soppeeful itaalatul xurrati guddali weex weex maanaam ngay jàpp fii lañ ko yemale raxas ba fii
amuñu yeneen yu sib sax loolu kay mu ni daal kon soppeefu ko wa masxu raqabas naka noonu masaa sa baat nga masaa bu mu kii nga ak ba ci baat bi amuñu yeneen wax ma ne foofu ne amuñu yeneen wax amuñu yeneen dañ koo sopp moom am na waaye xadis bu doy la xel bu doy
li may wax gaa yi ñu ne ne gis nga dañuy jàpp xadis rek waaw te xamuñu dem ma xam ñu dem même bu xadis bu wóoree am na xadis bu wóor ba noppi te jëfee duñ ko lu tax beneen xadis dafa ñëw gannaaw am ci ji loola
te fekk wala na- waaw ay circonstance rek taxoon ñu di ko wax bu tey loolu bu dee même alquran sidina Umar dal moo ànd ak kuréel bu joon dindi woon na ko nee na booba l'islam dafa ñëwoon doole di neex laa dugg ko dugg ci islam léegi islam am na doole sama du mu ànd ak kuréel te loolu alquran la waaye teewul ñu dindi ko teg fee ndax ci kaw jéggam waaw waabil waabil munaasaba maanaam ci loolu la wax ci wàllu xadis xadis boobu ñuy wax ci wàllu naan xaw ma yàpp gëleem toj njàpp yi waaw yu mel noonu.
waaw dafa am boobu ñooñu itam dafa am ñoo xam ne xam nga ahadis yi itam ni ma ko waxee ahadis bii dana leen jot ñii te ñuy jot ñii wala mu jote ñii ci yoon woo xam ne dana am sikki sàkk dootu du ko gëm comme imam Malik ci taqbirul yadi xam nga xadis yiñ ci solo yëpp weddi na ko moom la maay waaw waaye même ci biir ngërëm bi mujtahid muqayyad yi ci nekk yëpp wute nañu ak moom wute nañ ci ak moom man d' accord nañ ci comme yeneen ngir yi comme imaamu Shafi imam Abu Hanifa imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp nee nañu abul ayi dara ñëw ci imaamu Ahmad dafa ne bu fekkee ne ku ñu yaakaar ngëneelam la nga xam ne ngëneelam diine la islam dara nekku ci waaye bu dee ngëneelal àdduna mel ne ko boor wala borom alal nga def ko sit nañ ko sit moom sit na ko imaam Malik moom it néewul sharia sit na ko moom ci boppam moo ko sit ngir nee na day war a rëy ak gis sa bopp ak yëkkati ko comme Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom itam loolu te moom it daawu ko bañ maasale am na jamono yu mu ko daan nangu am na ñu ko daan am na ñu mu ko daan nangu am na ñu mu ko daan bañal Tidiane yi nag yooyu yëpp seetlu ñu ko ci comme dañu dañu dañu garaawal ko mu ne dafa am nag dégg nga xadis yu bari yuñ ci solo yoo xam ne imam Malik daf ko weddi maanaam daal weddi bi ca ña ña ko jëlee si ñoom ñoo ko dul doy. parce que imam Malik dafa am charte boppam yoo xam ne du ñu nangoo xadis ci nit ku baax koo xam ne. koo xam ne imam Malik ci boppam moo ko tëral noonu Malik juróom-benni kees yu fees del ak xadis des na ko suuf jàng na na mu wàtta ñeent fukki at ñoo xam ne. toujours ak mu ne muy ciy di di wàcc.
ci Muwatta waaw ba mu ba nga xam ne mën ngaa am ñeent fukki Muwatta yoo xam ne dañuy wuute ñaari nusxa rek tamit ci imposé moom la am benn Muhammad ibn Hasan bi ci des benn Andalusi moom la tuddati ñaar yooyu ñoo fi mujj nekk.
xadis boobu nag maanaam ci bi ma la wax léegi ci wàllu kii bi la wàllu wàllu lekk leen bi ah lekk yaa bëgg waaw lekk leen waaw moom xadis boobu ndax fi mu toll nii loolu moom jàpp nañ ni léegi tey moom du ayoon ay circonstances moo ko tax a taxawoon tam.
gis nga loolu. dafa dafa xaw a parce que réer man moo wax dëgg tax.
lu tënk ma sóobul waaye nit daal moo ko.
déedéet muy da nga koy gis ci fii ba bàyyi sa ban engrais da nga koy gis fii waaw waa xëy na laxmi des wala da nga koy gis fii ah waaw xam nga dañ dafa reeloo dafa reeloo dafa reeloo xam nga yàpp gëléem bi rek dafa dafa niin dana am kii yoo xam ne daal maanaam rek xaw nga seen xaw nga
boo ci ëppalee waaw xam nga loolu ba ñu nekkee kooku bi jàng waaw ba ñu nekkee kooku bi jàng xale yi benn seen mbayti ba faal benn gën yoom damm mu mu sax ko dongee foofa xale yi mu taal seen bi leen dégg nga yaa ngi muy sax ndox ndax dafa dafa kii dafa neen dafa bari kii diw bi ñu toog ba pare xale yi fu ñu tëdd mu yàq toog fu ñu toog mu yàq
dégg nga muy daal baabu suudu xaqi bi ak yéeg ak wax ba ji mooy imam ji daal mooy yéeg min baram si commune ba ba yoonam ne mu ne bismillahi tax mi wa tax wees woon wala xadihi daal di tax itaanatul xurrat nga wala tul dabu deful sopp su deful itaanatul xurrat yi guddal ay weex weex wa masfa raqabati ak masa baat wa tark masil aadaay sopp ñu itam bañ a masa ay jër nga ne man daal moo xam sarbet bu ma jàppee damay bàyyi ci tooyaay bi rek ma julli ndax moom lañ sopp dañ jàpp mu tooy mu julli fekk na ñàkk xam ne lañ ci jublu rek njàpp mu mu bees rek lañ ci jublu mu ba tax ñoo ne nag ne jàpp mu tooy yi kileem tuyaabaam ju bare ak julleem mu bare tuyaaba ba tax ñu bañ ko masa pour que muy tooy ñàkk dégg la ba tax ñu ne sopp nañu nga bañ koo fomp mu ne kooku nag moom la dàq fii ne kenn sopp ko kenn sopp ko waaw soog bu ñu bàññee masa ay cër boo jàpp borom way sàkk fekkee ni sikki sàkk na fii saalisatin ci aji ñetteel fa fii karaxatiha mi ci ci béeram wanat baha wala cofeelam xawlaani am nañu si wax waaw mu ne xam nga mu ne ba tarko dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci dara ci waaw danga jàpp xam nga ñett ñi la ñu yoonal bu njëkk bi ñu ne farata la nga rangin bi ñaareel bi sunna bu fekkee ne ñi ko jiitu yëpp maxle na bu ñetteel bi di sunna xam nga ñetti ñàngo ñetteel ñàngo léegi nag ci ñetteel yi dafa sikki sàkka ndax raxas bii mu raxas mu ñetteel yoon la wala bii mu raxas ñaar yoon lu rekk la kon desee ne ko beneen yoon wala ñetteel ñetti ñett ñi daal la sikk ñetteel bi la sikk xam ne raxas nag benn bu wóor na ko ñaareel bi wóor na ko ñetteel bi nag ndax mu xamul mu sikki sàkk ndax raxas na ko wala raxasu ko mooy nga in sàkk ni mu sikki sàkk dafay saalisati ci ak ñetteel mais fa fii kra karaxatiha musique ci biiram pour mu raxasaat ndax man day nekk ñeent te kenn jëlewu ko fenn toxal fenn ci kii ci lislaam wan warit baa wala sopp nañ ko ndax mu dikkee comme dafa sikki sàkk ñetteel dafa mel ne amul kon ñaar ñee wóor ne woon ci julli te kon war naa raxas kon benn bi mën na nekk bu nekkoon ñeenteel itam ndax bu doon julli da ngay indi li nga sikki sàkk da nga koy wax ci indiwaat ko ñu ne waaye nag wuute ndax bu dee julli da nga sujjoot baadu salaam te fii amul sujjoot wala ñu ne wala ne xaw laa dem gis ñaare wax xaala wax nag ku wax
Nasri
xaala wax ne Maaziri mu nekk ak chàkk yi naka noonu la sikkee fi saw mi yow mi arafata ci woor bisu arafa ba xel huwa ndax moom al iid mooy bisu iid ba xam nga yow arafa araama tere nañ woor ko léegi al iid iid tere nañ woor ko araama nañ ko woor léegi nag mu ne ndax yow ma arafa la suba yow ma arafa la te kon ma woor wala suba kaay dëgg dëgg ak kii la tabaski la te kon araam la mu ne noonu la demee pour mu woor ko dana am xa- xarar ci woor iid te kon dana araam moom mi mu ne ndax kon noonu la dañ koy def ne raxasu ñetteel bi mu sikk sàkka ndax bu woo bu raxasatee muy ñeenteel te ñeenteel kenn jëlewu ko fenn sudee sud nañ ko waxoon nañ ko nekk bi itam noonu wala moom kay melul noonu ndax yow ma arafa moom bu ko sikki sàkkaa yow ma arafa du farata te lu dul farata tam nar koo yóbbu ci lu araam te mooy woor bisu iid te ñu tere ko day bàyyi rek yemul kii ne ay ndax nan la mel ñaar ñooñu mu ne wute nañu kon nu taxaw ba